suñ bi daa bind bismillahi rahim tek ci julli ci yonante bi ñaan yàlla dolli ko teraang ak jàmm moog ay mbokam ak i dolle dolli itam sahaba yoyé dal ni gannaaw lolu ma ngi ñaan yalla mi nga xamné dara tawu ko mu daqal ma jëk lor balam ma maa sax nor ju jóg balam ma sax ma ngi koy ñaan mu daqal mako mu jëm feneen te dolli ma jëriñ dolli maa defal tawfiq maa ngi koy ñaanit mu doolee defal barke Ibrahim mii muy maam Thierno ci jàngale gi muy jàngale taalif yi nga xam ne maa ko jox ndigalul jàngale ko te muy taalif yi ma taalif gannaaw ba bàyyi ko ca géej ga waaye nag waxuma taalif yaa taalifu njëkk may dem ca géej ga xoolal ni mu jàppale yooyu yaar ñaanal jum ñaanal boppam yàlla di ko dàqal jëpp loolu ba mu ko dëgmal si da koy booleeg ñaan yàlla mu defal maam Cerno lépp luy barke ci taaj yi nga xam ne moo ko ko jox mu di ko jàngale tamu yi nga xam ne nag gannaaw ba mu bàyyi ko ci géej ga la ko taalif mu ne waaye nag génn naa ci yama taalifoon njëkk may dem ci géej gi mu teg ci it maa ngi ñaan yàlla ci daraje ki nga xam ne burlu ko nag moom ba bind dara bokkoo nag moom ci la wéy du ci bind dara ci li teew du ci bind dara li dëgmal siit bul ko nag moom du ci bind dara mu yonante wi maa ñaan ci dara jaam ibrahim mii mi maam Cerno mu defal ko ci taalif yi ma ko jox mu di ko jàngale moom mi koy jàngale ak ñam koy jàngal yàlla defal leen ci njariñ loo xam ne te mësu koo am ci jàng ak jàngale ne maam Cerno ci boppam ak ñi muy jàngal taalif yi nga xam ne moo ko jox ngir mu jàngale ko day ñaan yàlla defal leen ci njariñ loo xam ne guléet lay doon mësifu ko am ci jàng ak jàngale te mu ne loolu lu yomb yàlla la wa ma dalika alallahi bi xasis lim daane li mooy li ma jox Cerno mi ci ay xeeti wérd may naa ko ndigalul mu jëfe ko te di ko joxe itam boole ci maa ngi ñaan yàlla itam mu may ko ci wird yi ma ko jox ak képp ku jël ci moom rek maa ngi ñaan yàlla bindal leen ñoom yëpp taxe goo xam ne ak ñàkk taxe du ci topp mukk mukk mu ne ceerno mu sabaxaat bi nga xam ne moom laa la jox ndigal digal naa la nga jox ko mboolem taalib yi nga xam ne ñoo nekk foofu te it ku ko jëlee ci yow rek dal nay am taxe goo xam ne ak ñàkk taxe du ca topp ku jël mu sabaxaat ci yow rek yaa ak moom moomee yàlla boole na leen ci ñi nga xam ne texe nañ te duñu texee deeti mukk mukk te yàlla seere na ko muy wallaahu alaa maa du wakiil